di wax seen mbokk seen xarit seen raq Mamouska moo ñëwaat macha allah nee naa leen euh, mbokk kii nu mu tuddati sax Snapchat yeeg <laughs> Instagram ak kii Twitter Facebook ñoom ñëpp daal maa leen di wax maa ñëwaat daal waaye dëkk bi nag nan ko waxtaanee nag li fi nekk rek actualité bi fi ne nan ko waxtaanee du dëgg lépp na nekk temps rek ñu bañ a génn contre temps tamit nag lii dafa ñaaw doo leen bàyyi seen doom yi ca Europe dëgg neexul ngeen jàpp doomu jàmbur yi di leen tayle ñii di dee si élection yi pour lan la tamit ah nañ ko waxtaanee ku ñu jox cent franc ba deux mille cinq cent ba cinq mille baña ndax ñoom seen doom yaa ngi Europe toog di jàng de lu leer laa leen di wax ku ci bëgg dee nag àndal ak ñoom dangay dee euh, ma nu ko français di waxee daal tomb samaraadi lu dëgg il faut utiliser les choses daal ah les choses day fonctionner si sa tête nga koy appliquer ngeen bëgg ñoo sonal duñ ko nangu nag du dëgg ah waaye tamit dañ ko waxtaanee li fi bees ah yow buñ la joxee dëkk bi yow tamit kay kayang kayang ngeegi yow mënoo sax taxaw ah pale ba nee nga danga fay tijji baar assemblée ba am baar xanaa kon sénégalais yëpp a nar a mandi rek fu ku waay romb di kayang kayang loolu tam nañ ko waxtaanee du dëgg ah yéen ñi mal civilisé si la bokk. ñi lay ñi lay ñi lay interroger sax ñoo xamul lu ñuy interroger lu dëgg nañ ko waxtaanee nag lépp nekk contre temps Sénégal bi duñ ko dox duñ ko jox ko boppam nooy duñ ko jox ko dof ku nite lañ koy jox moo yore suñu réew loolu rek laa amoon ci lu may wax wasalaam. benn bi <laughs> les choses il faut kii daal du dëgg ah dama romb keroog benn accident bu metti boo xam ne ana nan la camion boo xamante ne ay ponoom ni ñu bëree.

He shows that. Hmm? topp leen rek jox leen ay parkaat fu waay romb kaj kaj bi di mel ni mbàjjum gerte ngeen bëgg raylu nit te loolu tamit du yoon daal dañ ko seetaan ministre bi tamit day wàcce ka yéeg rek ah borom Médiana <laughs> fi ma génne de daa baax waaye yow moom bàyyeeguma la <laughs> ma ne ko Mouhamed Thiam borom média na ah dëgg neexul foofa toj séeri soxna borom parcelle borom yére yu baax yi ah sañ se rek la lay génneel foofa toj li muy jaay de lépp rafet Moustapha Thiam borom médiana waa dëgg neexul séeri soxna xadi borom parcelle nee naa leen kooku boo leen bëggee lu leer lu efficace nee naa leen dem leen fa en direct parcelle la nekk waaw kañ parcelle la nekk foofa toj sañse boo leen mënta gis moo koy commencé di sañse les choses après rek mhm. moom day ñëw daal ci kii la bokk ci sponsor du deur yi te <laughs> nag sama xarit bi kii Alain dafa garaaw nag <laughs> eh, borom day fay de <laughs> les choses dañ ko waxtaanee rek hmm? du dëgg loolu yëpp bu weesoo xiiroo beeg ngaayoo beeg màttante beeg gajjante bi na lépp dagg gis nga sénégalais yi dofuñu ñi ànd ak yéen rek ñoo amul xel du dëgg gis nga ki nga àndal bàyyi ba bis ba kii yore kartam yow yor nga sa carte bu ngoonee jàmm ak salaam wala ci suba si ku nekk dem votel ki nga bëgg du dëgg ku ñu rey yaa perte te boo demee suñu borom dina la laaj ci loo doon def du dëgg nañ ko waxtaanee waxtaanu biir néeg mu bañ a génn nag bu ma kenn tiiñal bu ma kenn woolu nag dama koy waxtaanee fii mu yem fii mu ko kenn génnee wasalaam mhm. les choses pourquoi faire nag ah maa sañ seen ak tey <laughs>